ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci mbirum Bati Plus ci vidéo biñ ci mujjoon def dañu ne woon duñ ci dellu si tant que enquête bi avancé wul. mais dafa am benn mbir bu ñu seetlu loo xamante nii newul sax surprise parce que ci vidéo biñ ci mujj woon def waxoon nañ leen que ni du mbir mu ndaw maanaam du yomb du yomb ci gendarme yi nga xamante ni ñooy mën enquête bi du yomb itam ci juge bi war a àtte ndegam sax ñi mbir mi concerné dinañ dem ci yoon ndax ba moment bi ñuy wax ak yéen benn doomi aadama kese lañu teg loxo muy Rachel koo xam ni bu dul woon ak moom du ñu mën a xam ni Body Plus mi ngi doon rawale ay milliards ci lu jaarul yoon ndax moom moo génnee preuve yi woon ko enquêteurs yi waxuñ nag ni moom Rachel waruñu ko jàpp bu fekkee ni entreprise bi di Body Plus jàpp nañ ni dafa sàcc seen xaalis am nañ droit porter ko plainte mais sëgëm ndaw suñu njort ni maanaam jàpp ni moom dafa sàcc lu ëpp cent millions ci benn entreprise maanaam ay intérêt wu benn groupe muy waa Fares la ñu jàpp tëj ko masam ak ay milliards yoo xamante nii mënoon na jëriñ ay millions sénégalais mais ñu seetlu ni mbir mi dañ ko jël bëgg ko personnaliser maanaam mettre l'accent ci benn doomi aadama wala ñaari doomi aadama pour que finalement ñu fàtte mbirum Batiprus actuellement loolu la ñu nekk di gis au début faut tourner Rachel nga doon alors que mon ben élément bu ndaw la ci dossier bi dañ ko recruter woon dénk ko ben coffre bo xamanteni day am ben way bu ñew mu koy jox xaliss muy yóbbu xaliss bo xamni suñu corps de contrôle yi duñ ko gis. gannaaw Rachel ñu jël kaaw Cheikh Yirim Sek bëgg ko def priorité manam ay mbiru personnel ba kenn dootul wax ci scandale ba di plus mais scandale Cheikh Yirim Sek la ñuy wax ñun nak ku yàgg suivre chaîne bi xamni ni musuñu andak ak Cheikh Yérim Seck ak yenn ci ay journalistes yoo xamante nii seen doxalin rafetlu wuñ ko manam di utiliser sa média pour ay intérêt politique mais yamo ci nga dem bay tuumaal ay doomi adama manam véhiculer ay fausse information pour wàññi yenn ci ay opposants seen doole. Yérim Post def na ci présidentielle 2019 yi ñu weesu Le Quotidien bu ma Diagne defoon defon nako l'observateur bu Youssou Ndour def nako ci présidentiel bi ñu di def campagne contre ay opposants yo xamanteni ni lañ ci djublu moy sénégalais yi bañ leen wolu yaakaar ni ñepp suivre suivroon ngeen affaire Tullow Oil bi. mais bu ñu demee ba jëmmi jamono ku ci melni Cheikh Yérim Seck def ay révélation ci benn entreprise buy am ay bénéfices ci biir réew Sénégal di rawale xaalis di yóbbu. ñu vérifier yooyu information yaakaar naa ni yéen ñëpp suivre ngeen vidéo biñ ci defoon ba xam ni dëgg li entreprise bi doon def mën nañ ko jàppee li nga xam ne mooy fraude fiscale bu boobaa nag ñun dañuy nangul Cheikh Seck effort yi mu def lan moo nekkoon nag ay motivation maanaam lu mu ci jublu xamuñu ko mais bu ñu sukkandikoo seulement ci fee yi Bati Plus doon na rawale ay milliards yu doon échappé suñu corps de contrôle yi. li xew nag ci mbir mi yaakaar naa ni yéen ñëpp yéen a ko ñi yor seeni xel di xalaat war nañ comprendre que ni mbirum Bati Plus narta mujj fenn bu dee ni ci tànk yii la nar a wooyee ndax li ñu gisandoo ñun ñëpp mooy uliku ñu enquête ci ponkal yi waral mbir mi maanaam ñi ne ci kaw di def ay transfert de fonds dañoo wëlbati carte yi jëmale ko ci Cheikh Yérim Seck mi nga xam ni moom information la joxe. première convocation bi dañ ko ne dafa joxe information yoo xamante ni wérul parce que dafa ne 4 milliards la gendarme yi fekk ci naaru libanais yi nga xam ni fa lañ daan yóbbu xaalis bi

ne moom Cheikh Yérim Seck dafa tëddee ab mineur ba pare sàkku mu avorté maanaam yàq biir bi alors que finalement ndaw suñu doon wax am na vingt neuf ans maanaam ñaar fukki at ak juróom léegi avortement am na wala déet ñun jàpp nañ ni sénégalais yi xam fi seen milliards yi dugg ci mbirum body plus moo leen ëppal solo problème mu ñaari muskalaf ngeen gisaat ni dañu manipuler waat encore opinion bi parce que bi mbir moom éclaté journaux yëpp ak site internet yi ci loolee leen doon wax ba fi mu ne nii kenn waxatul lu jëm ci transfert illégal de fonds yi nga xamante ni njortu nañ ni dafa am biir Bati Plus te enquête bi war koo leeral. réewum Sénégal nag ñun jàpp nañ ni même bu fekkee ne am na ñuy nelaw ba léegi ñu ci bari dofuñ dina jàpp leen. tey bari na ñoo xamante ni dañu contre Cheikh Yérim Seck ànduñoo ak moom ci ni muy doxalee ci wàllum tasum xibaar mais mënuñu comprendre mu def ay révélation ñu war ci enquête ci mbir yoyé mu fësal ci même période bi ñu sulu yeneen dossier yo xamanteni vie privée am la sénégalais yi nag dofuñ motax comme niñ ko waxé ci titre vidéo bi Cheikh Yérim Seck fi toll ni ben pion la manam ben élément bu ñu bëgg utiliser pour soul dossier wu Bati Plus loolu mom kenn amu ci siki sac. ñun nag dossier wu Bati Plus amana bu nekkoon problème privé duñ ci mësa wax bari na ay société yo xamanteni ni amoon nañ fa problème seen biir mais waxuñ ci amuna ka bu fi jiboon fani entre benn homme d'affaires ak doomam bari woon ñu sàkk won ñu def ci vidéo mais dañu gisoon ni problème personnel d'abord en plus problème familial. famille la woon amaana bu ñu waxtaanee seen biir mën nañ jubo yoonu kenn nekku si mais affaire plus dafa nekk benn dossier bu ñu concerné ñun sénégalais yi parce que wu len ni suñu rew lu bari ci likoy doxal moy impôt ak taxes yi li entreprise yi di comp ci seen chiffre d'affaires manam li ñu gagné ci at bi diko ko verser suñu rew khalis bobu nonu bokku na ci li tax ñuy fay ay salaire di ci financer yenn projet yi waye tam di ci tabax ay école wala ay fa jukay pour bañ nak entreprise yoyu nonu di gagne alal ju bare bare ci suñu rew di def ay déclaration yo xamanteni wirul manam neub li nga xamni ñu ngi koy gagne pour baña fay impôt manam nga réaliser lu tollu ci 5 milliards de bénéfices ci at bi wara verser Sénégal à peu près 1 milliard nga né 2 milliards cote nga am comme bénéfice pour bañ lolu nonu suñu rew tek fi ay corps de contrôle yo xamanteni ñooy ceetu état financier wu société yi liggéey ci biir réew mi di fi gagné xaalis bu bare bari corps de contrôle yooyu noonu di jouer rôle bu am solo pour entreprise yi bañ di rawale xaalis wala nëbb koppar gi nga xamante ni ñu ngi koy am ci suñu biir réew loolu nag moo tax mbirum bati plus amul solo ñu bari ndax dañu jàpp ni bu dee ni ñoom dañu am ay courtier yu ñëw seen biir entreprise di jël xaalis te patron yi di leen yónni ay milliards yoo xamante ni du dem banque xel mën na tee ni xaalis bu takkoo takku mi ngi rëcc Sénégal te mënul ñoo jariñ ci lu bari loolu moo tax ñu ne bu ñu nangu ku ñu divertir di ñu wax vie privée jàmbur comme Cheikh Yérim Seck loolu ñu solo li ñu yitteel mooy ndax affaireu Bati Plus bi dafa am fraude fiscale waaw wala déet te loolu pour mu am faaw yoon déglu ñi moom société bi nga xam ne mooy Bati Plus muy famille Farès mais ñun li ñu jaaxal mooy ñoom ba léegi fi ñuy wax ak yéen mi ngi mel ni seen yoon newul ci mbir mi té luñu ñu jaaxal ci mbir mi moy benen dëkk muy États-Unis ñom ñi ngi jéma préserver seen intérêt ci affaire bi parce que waxoon na leen ko États-Unis li tax mbir mi intéressé ko dossier bi ni moy société bi di Batimat yu juru Bati Plus kiko jité moy jarbaatu ñom Mohamed Fares bi wuyoo ci turu Abbas Fawaz mom Abbas Fawaz États-Unis daf ko bolé ci seen liste ndaw Hezbollah yi nga xamante ni ñooy opérer Afrique de l'Ouest manam ñun suñu réew yi États-Unis japp ni fi lañu wuté wutee koppar ngir financer seen organisation bobu noonu bu dee itam ci beneen wet boti plus xaalis bi nga xamante ni moom la ñuy rawale dara wóoragul enquête baa ngi wooyu ba léegi mais bu fekkee ni ñoom xaalis boobu noonu pour financer waa Hezbollah la mën nañ ni ñoom itam maanaam waa Fares ñoo ngi dooleel réew bi seen i maam bàyyi ko muy Liban ngir ñu mën a jàmmarloog pexey États-Unis kon c'est de bonne guerre comme ni ko tubaab bi waxee entre ñaari réew yooyu muy Liban ak États-Unis ku ci nekk yaa ngi jéem a sàmm sa intérêt mais ñun Sénégal kan mooy sàmm suñu intérêt est-ce que dañoo war tok di seetaan ay milliards di recc suñu corps de contrôle yi alors que mënoon na financer ay projets yu bëri mënoon na participer ci former yi ndaw wala accompagner len ngir ñu mëna am xey wala créer sen propre business. ñun en tout cas famille Farès seeni bénéfices yi ñuy am biir Sénégal té mu jaar yoon fu len neex mënuñ ko fa duggal ñoko mom sen xaliss la lolu intéressé wuñu mais transfert illégal de fonds yi ci ciy tudd ñun lolu moñu intéressé ci dossier bi suñu yoon itam newul ci FBI parce que ñom défendre intérêt États-Unis mo leen tax mais lu ci Sénégal di gagné lolu moy wax ji ñun intérêt Sénégal motax ñuy wax. léegi nak ndax enquête bi dinañ ko pousse ba xam li waral ba ci plus doon transféré ay xaalis gu bari bari ñogi déglu mais li xéñ neexul parce que moment bi ñi wax ak yeen acteurs yi nga xamni ne ñoo impliqué ci mbir mi tàmbalee ko ci famille Farès ñi nga xamni ne ñoo moom Bati plus mom Bati mat mom yeneen société yi nga xamanteni ñi ngi gañe xaalis ci biir réew mi ba légui kenn dégluwu leen ci mbir mi. ñoo ngi divertir nan jàppal Cheikh Yérim Seck baal Cheikh Yérim Seck ba kenn sax talatul dossier bi finalement kenn mooy perte Sénégal ñun nag wax dëgg fa yàlla nekkuñu ci démarche nañ tëj bépp société bu famille Fares moom ci biir réew mi wala nañu leen boycotté parce que bu dul dara itam am na lu ëpp ay junni doomi aadama ay sénégalais yu fay daan seen doole ay boromi njaboot yoo xam ni bu seen société yi tëjoon ay famille yu bari Sénégal dinañ xëy du ñu am lu ñu lekk mais lépp nañ ko teg ci yoon nañu xóotal dossier bi xool ba xam xaalis bi ñu doon rawale depuis ay at pour bañoon fay impôt la wala déet bu dee ni du loolu ñu bàyyi leen yoon bañ leen toppee dara bu dee ni moo am ñu fay état bu Sénégal ay milliards yoo xamante ni ñun dinañu mën a permettre ñu fay ay salaire tabax ci ay hôpitaux wala leneen loo xamante ni sénégalais yi daañu ko mën a jëriñoo parce que mënuñu comprendre dëkk bu pauvre comme Sénégal di bàyyi xaalis bu nu doy di ko rëcc. même dëkk yi ñu gën a développé bés bu yàlla sàkk nga dégg ñu ne teg nañ diw ay daan yu métti ndax fraude fiscale moo xam ay om d'affaires moo xam ay footballeur wala ñuy yëngu ci wàllum aar sëgëm dëkk yooyu nga xam ne dañu développé ñoo mën a jël seeni doole gépp ngir xeex loolu noonu maanaam fraude fiscale masama ñun ñi nga xam ni suñu doole bariwul dañuy sax dem bitim réew di leb xaalis ngir mën a fay ay salaire kon nañu bàyyi suñu enquêteurs yi def seen liggéey ci seen teyu bakkan ñu feeñal li làqu ci dossier Bati Plus bi moo gën ñuy divertir ak kaaw Cheikh Yérim Seck bi ñu jàpp ni tey benn élément la boo xamante ni bëgg nañ sukkandiku ci vie privée def ay révélation ngir ñu fàtte dossier bi nga xamante ni ñun moo ñu ëppal solo ndax xaalisu Sénégal mi ngi rëcc di tàbbi foo xamante ni ñun xamuñu fan la États-Unis ñoom ñu ngi préserver seen intérêt wax naa leen FBI mbir mi intéressé na ko trop ñoom ñi nga xam ne ñooy doomu liban yi ñu ngi sàmm ñoom itam seen i intérêt mais ñun Sénégal kan moo ñuy sàmmal suñu intérêt kan mooy tax mbir mi leer bu amee luñ ci mën a gañe ñun tamit ñu gañe ko ci ndax bari na lu ñuy xaar ëllëg donc jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jàngin jëf